Serigne Cheikh Conté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout traditionnel nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ciy dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar ba feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram li si xaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi Serigne Cheikh Konte ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk.

képp ku ñëw ci rassemblement bi man nga ñëw taxaw ñu jox la sa t-shirt ko nga taxaw ci point de rassemblement bi ñu bàyyi voie bi mu fleuve oto yi mën a circuler normal merci. par l'autorité Donc le point de, de rassemblement, c'est ici. On attend d'un moment à l'autre pour que les populations puissent converger vers le, le point de rassemblement pour aller euh, démarrer cette marche silencieuse et pacifique pour exiger en tout cas du respect à Dick Larmier, notamment euh, la décision, la dernière décision en tout cas qui a été prise par le Conseil constitutionnel, de savoir euh, des élections aux autorités étatiques pour les pousser la date de l'élection dans les, dans les meilleurs délais. Rappelez aussi que tous ceux à qui on a donné des t-shirts de reporter ou donner à la marche une, une image qui reflète véritablement l'aspiration des, des Sénégalais et des Marche silencieuse organisée par euh, la plateforme Action Élection pour euh, exiger en tout cas du euh, respect du calendrier électoral notamment les les actions nañ la. tey ñu gis la nga nekk ci marche pacifique bi nga xam war ngeen ko dox. ñu bëggoon sa am sa appréciation tey ci organisation bi. waaw marche bi dama ñëw comme ñëpp. nekk euh, sénégalais nekk une personne vivant avec handicap wane ne man aussi handicapé la mais ci société bi laa bokk. am na de la population yi nga xam ne dañoo handicapé ñoom ñëpp am nañ seen i bu ñu nee pour cent de la population maanaam Sénégal bu jëlee 17 millions 3 millions yëpp ay handicapé lañ donc chiffre boobu chiffre bu am importance ci ci liste électorale bi donc di ñaan rek. li nga xamante ni moo fi tax a ñëw ñëpp moo ñu tenir sunu élection parce bu Sénégal changé situation handicapé yi dana changé incha allah loolu moo waral ñu ñëw taxaw ci kanam wan ne public bi wan autorité yi ne ñun tam ci lañ bokk dañu cee war a boole loolu moo waral seen teewaay tey. macha allah merci. gis ngeen ko mu nekk kenn ci li nga xamante ni comme handicapé la moom comme ni mu ko waxee ah nee na ñun handicapé yi ci li nga xamante ni moom mooy Sénégal la ñu bokk te tamit dëgg la ay sénégalais lañ am nañu identité nationale bu réew mi donc dafay baax lépp loo xamante ni tamit euh, dañ ko dañ ko war a am comme lu jaadu ñoom it ñu bàyyi leen ci xel gis ngeen ko ba tey ñu leen di toppal euh, euh, marché bi ñëpp taxaw nañu amul pa amul maire amul ndaw amul mag amul xale ñëpp génn nañu ñoom ñëpp nee ñu tey dañoo war a wane li nga xamante ne moom moo ñu met dañoo war a wax li nga xamante ni moom mooy suñu élection waruñu ko waruñu ko réculer waaw ba moo waral tey ñu génn fii naaj bi tàng na mais gis nga reculer wuñu xawuma ba xam naan nañu ndox waaye daal naaj bi tàng na lool mais gis ngeen leen ñu ngi nii taxaw di xaar ñu jox leen li nga xamante ni moom mooy point de départ bi a dem fa li nga xamante ni moom mooy ca rond point Liberté 6 pour war a euh, foofu ndax tamit foofu la ñu war a euh, def seen euh, terminus après bu ñu defee seen terminus passé seen message après ku nekk dem ah, mais gis ngeen ko leader yi commencé nañu ñëw benn benn dafa mel ne nag loolu la ñuy xaar ba moo waral mu xaw a yéex ndax il est 11 joxe woon ni. 11h la ñuy def seen départ bi waaw il est 11h25. onze heures non onze heures et demie. est-ce que temps mais ak lu ci mën ci am itinéraire bi ñu leen jox ak heure bi nga xamante ni du fii ba fële. bu bu bu bu ko dépassé seen temps te bu boobaa tamit lu mën ci am rek nañu xam ne ñoom ñoo newul ci yoon. parce que tamit d'accord marche droit la te tamit bu fekkee nit ki bëgg na ko te doon citoyen ci réew mi da koo war a am d'accord mais tey boobu ba tey ñu gis euh, ay ay ay ay gàllankoor ci bu ñëw bëggee marche ñu ne leen non mais tey comme comme nangul nañ leen ko rek ñoom ñoom it nañu wane un bon exemple wane ni yéen li nga xamante ni noonu ngeen di doxee ñun doxee mooy jox nañ leen ba 13 ou 14h ah. ba ba 15 fi ba 15h moom lu fi deful nañu nañu toog te xam ne mënatuñ ko fi def ndax des na 11h midi 1h des presque 3h trois heures de yoo xamante ni mën nañ ko am donte naaj bi dina tàng mais sax ma sax ñu ñu yegg foofu ma ñu yegg foofu ndax naaj bi tàng na euh, nit ñi am na ñoo xamante ni dañoo jóge fu sori am na ñoo xamante ni ngoon la ñu war a liggéey ah mais gis ngeen leen ñu ngi fii daal ñu ngi fii kon nañu xaar nañu xaar rek ñoom bu ñu joxee seen euh, départ rek ñu topp leen Euh, wan leen li nga xamante ne ñoom noonu lañ nar a doxee dëgmal foofu nga xamante ne moom mooy seen terminus après bu ñu fa demee tamit message bu ñu war moo fi amagum waaw mi ngi dem normalement ñu ngi ñu ngi dox seen occupation normalement ku bëgg liggéey bu jaaree fii dina dem force de l'ordre yi encadré nañu gars yi te lii rek la ñuy bëgg quoi ci ci manifestation ñu ci bëri tey bi ñu yëgee ni euh, euh, marché bi autorisé nañ ko ñu bëri liggéey nañ parce que da nga daan gis bu bu yi mësaan am buñ ko mësaan programme programmé ñu yëg ne dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko autorisé wuñ ko rek ñu bëri duñu duñu bëgg di génn ñu bëri daañ ñu bëgg dem fi nga xamante ne moom mooy seen bërëbu liggéeykaay ndax dañuy yaakaar que bu ñu génnee dara mën leen dab ci yoon bi mais tey gis nga képp koo xamante ne waroon nga liggéey ci matinalu samedi bi liggéey nga ndax da ngay xam ni ah, lépp dafay jaar ci yoon da ngay xam ni doo ci nemmeeku leen loo xamante ni mën nañ ko fi gis ah kon ñu si jaajëfalaat ki nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi bu baax ah gis ngeen ko population sénégalais bi plateforme à sunu élection lañu wax tey mu nekk journée bu am mu nekk journée boo xam ne ne am na njëriñ merci beaucoup soxna Awa Faye jël na carte ñu ko jëlee sama ñi yor banderole yi nañ nañ ko indi ñi yor banderole à sunu élection yi nañ ko indi. ah du yoon nañ ko indi ci côté Sénégal bi. du yoon ñu taxaw foofu. rassemblement bi na ñëpp ñëw ci territoire bi. na ñëpp yéeg ci territoire bi. nous sommes venus ici pour célébrer. rassemblement bi fi ñu taxawoon baax na. fi ñu taxawoon baax na ñëpp ñëpp taxaw. la victoire du respect de la constitution qui a été bafouée. Et je rappelle que dès que le président de a pris euh, son décret de renvoi des élections, euh, j'ai été le premier candidat à aller au Conseil constitutionnel pour contester cette décision. Donc je suis aujourd'hui extrêmement heureux, par la décision du Conseil constitutionnel qui remet la Constitution à sa vraie place. le Sénégal doit rester cœur de démocratie, de pays euh, concertation. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, avec l'ensemble du et pour dire non au non-respect de la Constitution, à cette grande victoire du peuple sénégalais, et que nous espérons avoir une certaine élection avec de nous permettre courant mars d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes et que le 2 avril, qui est passation de entre le nouveau président et l'ancien président, et bien évidemment, j'espère que le nouveau président sera malégal tout pour amorcer les ruptures et les transformations Et la polémique tourne autour de la date elle-même. Personne ne sait exactement est-ce qu'on ira, on ira au-delà du, du, du 2 avril. C'est quoi votre position Non, vous savez, il n'y a pas de polémique pour le moment. Je pense que le président d'Afrique s'est engagé à respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Cela veut dire que donc dès demain, il devrait engager, sans le doute, les discussions nécessaires avec les candidats pour qu'on ait une date consensuelle. Mais il n'y a pas une date consensuelle. léegi expliqué li bokk ci marché bi pour avoir leen jiitu leen jiitu demee képp la dem ci côté drapeau bi moo ci drapeau bi mu yéen. Allez-vous participer à ça pour parler, pour trouver une ñëpp ñëw taxaw ci ginnaaw drapeau bu ko kenn dépassé écouteurs yi ñu aligné devant ñu daal di taxaw ñu respecté consigne comme ni mu waree am suñu élection lii moo ko tax a jóg ànd ceeg population sénégalaise bu doon loo xam ne dañ ko autorisé waaw mu nekkoon euh, président Malick Gakou bu grand parti moom it wax na li nga xamante ni moom la am ci euh, appréciation conseil constitutionnel nee na kontaan ci te loolu la doon xaar ah, kon mu mel ne mu mel ne mu mel ne heure bi jot na ah. mu mel ne heure bi jot na mu mel ne heure bi jot na kon ñu ngi waaj a départ ñu xool gaay waaw gars yi kon ngeen gis ko ni marché bi démarré na léegi ñu ngi dox ndànk-ndànk nit ñi nag ñoo xaw a bari nit ñi ñoo xaw a bari looloo waral que xam nga ñu xaw di yéex mais ñu ngi leen topp. Macky Sall le dictateur Macky Sall le dictateur Macky Sall le dictateur Macky Sall le dictateur Macky Sall le dictateur Macky Sall dictateur

pour l'organisation des élections présidentielles. Donc, c'est devenu un jour. Les gars, bonjour. Alors, ce qui est libre, c'est marche. Et les gens, ils sont là, ils sont là, ils sont là. élection ay kuréel yu bëri ñoo ci dajaloo ñi ci ëpp te ay ñi nga xamante ne faruñu fenn bokkuñ ci benn parti politique loolu dafa am solo pour ñu suñu parti politique yi également ñëw lu ci pour jox ko toole dogal bu conseil constitution nal jël mooy dogal bu mu war jël parce que dogalu sàmm suñu suñu li nga xamante ne mooy suñu ndëgër laay dafa mel ne bu fekkee suñu kër ndëgër laay bi liir bi ñuy diir boobu kenn warul seetaan mu daanu la conseil constitutionnel def wan wan askan wi wan sénégalais yi que yoon mooy suñu ndëgër laay dañ ko war a sàmm li ci topp mooy président Macky Sall nangu na ndogal bi dellu ginnaaw aussi également lu baax la mm-hmm. dellu ginnaaw euh, bëggoon dara bëggoon ko forcé conseil constitutionnel ne la ay limite ngi nii nga xam ne limite yooyu waroo ko franchir parce que boo ko franchiree dina indi ay jafe-jafe ci

Merci. sant yàlla yàlla tey waɗaani département Wodi donc ko première leçon o woni cette fois to yimɓe sénégal mbaɗaama waɗde manifesté ɓe ngacca mbaɗa manifesté donc ko kaɓeren ko ko démocratie leydi men ndi leydi woni nde hare no mbaano ni waɗi haa 2000 ha 2010 ha 2010 kala Serigne Cheikh Conté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout la nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ciy dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram li si xaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi sëriñ Cheikh Konte ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk